moti a nga naatal xarnu bi yow la nu yaakaar nag abada ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum na nu mboolem leen daa bakkaar ji ka ci xarnu bi yaram nu tey yaru na nu dootu nu fo xammi na nu dootu nelaw yow na nu sarax nu naatal xarnu bi soo nu joxoon nag la nu yoroon dootu nu def na nu defoon xanaa yegoon yaru na nu ku weddi laajal xarnu bi yaram lu na nu toroxlu nanu juwaay nanu ren saraxtu nanu jéebu nanu soppiku nanu sarax nu naatal xarnu bi nun tuxu nan sunu këri baay gaddaa dellu sunu baay Tuubaa di kër Bamba di ay sëriñ bi jeexul xarnu bi murid saali nañu leen ngir xam ne yaa leen amewoon yaa joxoon lañ yoroon yóbbu nga booti xarnu be tijaani reccu nañu tey xam nañ ne suuru boy yaa mën a may lu doy mati a nga naatal xarnu bi bawal bawal jolof jolof mboolem pëlëg naar ak wolof kenjul ko ami yëpp bi gi asul xarnu bi koo xam ne daana ami jaag da angaara ke jóg mi an ma deen mu jeeg sëriñ bi gi asul xarnu bi ku masa am yaari wata soxla weren ñaari mata te am jagu mata sëriñ bi gi asul xarnu bi koo xam ne daana mi taax tey mi ngi eegi ne bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi geesul xarnu bi kër yaa ngi weet ba ne cundung lan yeen yoroon dabi korong ñu dooni buur dabi koyong sëriñ bi geesul xarnu bi tubaab yi sax perte nañu ñi leen gëmoon peñ nañu yaa wootiit fayin nañu yàlla nañ yee ci xarnu bi naar yaa yel naar yaa ngi yel waana kaxaar tubaab yi sax perte nañu ñeen gëmoon peñ nañu yaawoo tiit fay nañ yal nañ yees ci xar mi ña tukki wan far nañu lang fa njul dee seen falang aduna yaa kanoo weleng sëriñ bi geedul xarnu bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar cheikh buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn talatul loo joxe naar waay mbàkke geedul xarnu bee waay mbàkke yuuxu nan ba dee wala noo soo yeexeenu dee mel ne kuy ramukku dee يا ياتي الواخر آية نبي يا يا دني محمد تيارنغا شرب امدو تيارنغا بوتي احمد من غا دفر واخر نبي من غا دفر بيتي كبير دفر غا بادولو كبور يا دني اغل باك دي بير شاك مريتي خرنو بي من غا كنم من سغناو لو سنتي الله امنا واو لو اخفدي واني نواو واخلي ان نعات الخرنو نبي شمير apaatin ak dërëm na xarnu bee ngaram te am dërëm te okku gam nga may njëriñ waa xarnu bi ma leebu gaay le xamul waaju xamu des koy xamal subaana yaa kamat kumal yaa neexawan waa xarnu bi nan far wañi ko tagg daam ngir mu oonu may jombi ma am booleeg mu di daw dira am ak cantaxar waa xarnu bi bamba mu ne sira misaal yaa ji juur waa Sénégal defu la jàlle genn gaal Seydou sa tool xarnu bi Cheikh Bamba yaa di Mbambulaan ku soobu dootu ñaane naan ku mane dey di teen say kaasa mandal xarnu bi ku soobu génnaal yi dërëm bekkoor bi dootu dem këram kon a coram kaasum ngërëm du xii du mar ci xarnu bi géeju ikam gim daa dëtëm ba ko secc moo ñoyom monsieur bu